de talibé parce que lui c'est un cheikh Ousmane bu sell mi <laughs> ndeysaan Ousmane eh, bu sell mi waaye ak seen talibé waaye ndeysaan seen dof ah ko topp Ousmane Sonko Sonko Sonko Sonko mais eh, yéen lan moo leen dal nekk leen nit nekk leen nit ku nekkee chef de l'opposition ce que mooy bu ñu defee élection ki topp ci président foofu nga nekkee waaye ñun bëgg ko sàccal waa ji daal xam naa ne daal am na sëriñ ñëpp koy neexal quoi xam naa ne ñu ko nopp bëri nañ de ah mais di doy na waa mooy bëgg waaw ma ne Saint-Valentin joie de fête de Saint-Valentin à tout les belles femmes du Sénégal à nos chères sœurs nos mamans et nos épouses aux célibataires ku amul jëkkër yàlla nga am jëkkër ju baax ju lay yor ba pare yërëm la waaye jëkkër joo ne dafay bàyyi di dox yi di doxaani di la faaleel di la dóor di yàlla musal ci góor yooyu ah j'aime bien les femmes parce que dama bëgg suma yaay j'aime ma maman moom ma moom ku yàlla bind naa koy yàlla mu gën gën gudd fan mu nga Kaolack yaay yàlla fi yàlla bàyyi encore di la gis di ñaanal parce que man sama yaay mooy sama vrai sëriñ murid laa am naa sëriñ sëriñ Sidi Daaru Salaam mais sama sëriñ bi njëkk mooy sama ndey sama yaay te loolu laa gën a gëm moo tax yéen ñi il faut vous occuper de vos mamans aussi pas les abandonner au village être à Dakar di noo sa xale jigéen yi fàtte seen yaay yal na yàlla musal ci loolu Ça, c'était une parenthèse de la Saint-Valentin. Alors, je reviens à nos moutons. <laughs> parler de cette provocation. Parce qu'il n'y a pas de crise au Sénégal. Quelques pneus brûlés, ça et là. C'est vrai, qu'on peut regretter. Mais il y a eu combien de morts en 2021 en 2023 On parle de 50 morts. Et tout suite, on va, les Nations Unies, les États-Unis, oui, il faut une enquête. Et en 2021, rien n'a été rien. Et il avait 10 fois plus de morts ces deux dernières années. Du, du à Pastef, qui dissous et dissolution confirmée par la Cour de justice de la CEDEAO qui a reçu les documents de l'État pour voir que ce parti entraîne la mort et le terrorisme. Et la CEDEAO, la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la CEDEAO a dit que aucun droit de Sonko n'a été violé, aucun droit de Pastef n'a été bafoué. C'est un parti qui mérite la dissolution. Macky Sall yow yaa bëgg a réhabilité waat Pastef <laughs> Macky duñu la bàyyi def loolu de yow Sall yaa bëgg waxtaan ak waa ay Sonko yi nga xam ni rey rek lañ bëgg ak jël la daggate la comme ni ñu def Samuel doo Sonko yow lu mu la wax ne nañ la war a daggate morceau rey la daggate la morceau di la traîner ci mbedd yi yow so yow yow yow Macky Sall yow lu la dal yow yaay wax Sonko ak ay nit yu ay ay ay ay ay ay nga xam ne ay ay ndongo Alioune Tine ak Atepa ay ndongo Sonko ay taalibe Sonko ay yambari Sonko ay suq Sonko président président dañu bëgg nga dawal sa xel xam ne ñun duñu nangu mukk ay reykati nit ay taalkati oto ay taalkati kër ay ñi def cocktail molotov di ko sànni ci kër jàmbur yi ak oto yi de dagg péage bi autoroute à péage bi da rey nit ñi di taase oto yi président ñooñu di defal cocktail molotov yi ñooñu nar gatsa gatsa mortel combat président ñooñu naan ku dee ndeysaan tey dafa Saint Valentin bu dee jigéen ñi yéen ñii yéen ngoog ku ku ku dee sa yaay dana juraat ayu waay dee sa yaay juraat keroog laa ba ma koy def ko benn presse ma def nii ma nii ay waay kii moo soxo bi ma ne bi ñu ma recalé ci élection yi ñu teg waaw Sonko yi ay de génne image boobu mbéy dama naan ndax dañu ma recalé moo tax ne kii moo ñi ñoo soxor xoole niñ mënee fenn ni ñu mën a def montage ni ñu aayee ci kàcc ak ci manipuler ñu ma mel ne man dama saalit wala dara man ma fii boo ñëwee fii gisoo ñaata plus de cinq cent mille par parrainage man ma toj Sénégal jaar dëkk par dëkk deux mois yéen presque kenn mënu maa gis kenn dégg ma fenn barke alxuraan image yi mu ngi fii ma am li am premier tour ñëpp ñoo ne El Hadj jàll na yéen déglu ko sax ñu ma ne El jàll na jàll na jàll na ñi ñi dama ma félicité ñu fexe ba rocc ci ay ni ni ma doublon benn mois dañuy huit laa manqué le huit beneen ñu ne trois mille non trois mille bëriwul Rose Wardini am na trente et un mille yu ma dugal am na ko deuxième tour Bassirou Diomaye Faye du ay treize mille xaw ma quinze mille la a dugal moom a gënoon a sore lool moom mi ñëw day gagné si mënul jàll premier tour bëgg ñu ko fa tegal ko Bassirou day gagné premier du am sax un pour cent président bu ñu la gëmloo ñi dañoo war a jël réew mi da ngay di jéem a di leen neexal di waxtaan yaakaar jàmm ci ñoom faalewuñ leen du ñu dara Sénégal yi ma dugg Fassma Baba maa ngi nuyu Pam Baba toog jànkee suuf jànkee kaw mbay la kajaw njóobeen taaleen Medina Toob Medina Toobeen Idda Murit Tambacounda Nioro Kaffrine Koupentoum Koussanar Tambacounda laa waxoon léegi Goudiri wàññeekuwaat dem Kédougou romb ci gaynde yi ñëwaat dem Kolda tëb jàll ci pont Gambie bi dem Nioro ñu teeru ma ni ñu teeroo buur ma ñëw France ci Kaolack xëy dem jàngi neew Gossas Touba waaye El Hadj Diouf jóge fa ba mu jógee Diourbel daal di dem Fatick daal dem Mbella Kajaw njarni daal di jaar Patar dem Diofior def Fimela Maître daal def Mbour def Gekkox def Somone fu ne Maître dugg na fa Joal euh, ak euh, Jifeer euh, ak Samba Dia ay caajaay Kougheul moom dañ ko toj Kougheul meeting ba dafa lool Kaffrine noonu Nioro noonu Mbege maa ngi nuyu Dame Sow Dame Dame moom kenn indi na ma cinquante cinq mille parrainage dans le Kaf Kaffrine Ndoukoumane benn femme indi fi moom plus de vingt huit mille parrainage day Fatou Seye Touba maa ngi lay ziar di la nuyu kii. amoon na onze mille parrainage Matam xool ko Moussa tukulóor la léegi Matam ñoo ko moom Podor noonu Pap euh, Sémou nekk fi Sémou Diouf moom kenn Fatick il a ëpp trente mille parrainage bi ba Fall toog responsable Dakar il na mat